di wax ko neex. Mm. du du du mel Pape mm. voilà maintenant il est devenu directeur d'une très d'une euh, très grande télévision une télévision nationale lol dina am aujourd'hui ci comportement j'en suis sûr et certain que on aura un autre Pape Alé beaucoup plus équidistant par rapport à euh, euh, la chose politique. Mm. un Pape Alé beaucoup plus indépendant un Pape Alé <laughs> beaucoup plus équilibré. par rapport à qui. beaucoup plus équilibré par rapport à qui mais mais d'une manière profonde. Hmm je vois des réformes. Hmm. Fallo au niveau de la RTS beaucoup de réformes xëy na peut-être loolu dinañ ko gën hmm, mais quand même il y a des réformes à faire au niveau de la RTS. Hmm. alors donc mi exactement alors donc on passe euh, ginnaaw li nga justement euh, Pape Alé Niang fa nga xam télévision nationale euh, dañuy daal di ñëw si ki nga xam ne Sal, Cheikh Issa Sal. Cheikh Issa Sall nag tey jii def na li nga xam ne moo di Cheikh Issa Sal, diggante moom ak ki nga Ousmane Sonko ñeel li nga xam ne moo attestation caisse de dépôt et de de consignation euh, ginnaaw ba fa euh ki nga xam ne rek euh, moo di euh, Fadilou Keïta daal di utuwee mhm. moom nee il sort euh, en toute conscience tranquille lu ñu mel nag ñu né li tax peut-être mu wax ko mooy critique bi nga xamni tam sénégalais ci amoon ko ci mom par rapport ak coowal mom ak Ousmane Sonko way tam li nga xamni tam mom la conseil constitutionnel doon ko reproché que ni euh, il y a des anomalies il y a des failles à travers ces administrations su des jeux ak li nga xam ne que CDC naka di ce message bi nga xam tam tay Cheikh Issa Sall wax na ko je quitte avec ma conscience tranquille mais chacun peut le dire hein maintenant la dernière décision ne les appartient pas. On un poids ba tey bu ah, parce que li tax mu wax Certainement, parce que si si dossier Ousmane Sonko. a hmm. sax affaire de vengeance Là, mais quest nga que bi c'est am loo xamante tout simplement il voulait suivre la volonté du chef, la volonté du président Macky Sall. Rien que cela. Hein. Hmm. Pour euh, ba ba dem ba xañ koo xamante ni tey li ko aussi loolu des na si dañ ko ay ay ay aussi véritablement. Hmm. lu lu lu diis lu aussi seen ndodd. ok te ñoom dormir aussi fàllu avec euh, une conscience tranquille ça ne peut pas être <laughs> xam nañ ni forcément. parce que régime bi daf leen yàgg menacé aussi. Hmm. xam nga ñi dañ leen yàgg menacé avant que ñuy toog. Hmm. parce que bu fekkee nekkoo woon si lu jub nekkoo woon si dëgg te Issa Sall mi ñëpp xam nañ ñi bi mu nekkee caisse de dépôt de consignation nekkul si dëgg fàllu ñu waxante dëgg. Euh, non euh, si attestation bi. foofu dafa juum dafa juum foofu dafa dafa hmm. dul yoon. parce que tout simplement même administration bi yëpp la que ce soit muy DG muy ndaaf gis ngeen coow li lim fi juróon ci loo xam mënoon na ko yàq mënoon na ñàkk. maintenant. s'il dit aujourd'hui que euh, avec une conscience tranquille mm. mais il peut le dire mais c'est la dernière décision le dernier mot ne lui appartient pas mm. il faut qu'il sache cela aussi il y a des parce que secteur si véritablement à statut institution bi conformité constitution mm. nangam nangam nangam nangam bu

kooku askan wi. en tant que général ah ah mais en tant que président la ñuy topp président de la république day wàcc altine talaata ñu jàpp yow ñaata président ñooy ñooy ñooy ñoo nekk kaso fi mu toll nii di purger seen ñaata président si àdduna bi ci Afrique gii lañ tëj ci kaso yi te président moo gën a gawe kon kay bul ma en tant que général. le pays de la teranga Sénégal. waaye ban pays de la teranga même même le président Macky Sall sax waru woon yo gënam bi yomb na lool Fallou.

bu jaree sax damm caabi ñu ñu def ko parce que bakken dafa fort tey li la dal xale yooyu quatre-vingts personnes yooyu mënoon na la dal yow mënoon na ma dal parce que demoon nañ ba Sénégal nekkoon na ci situation chaotique boo xamante ni mënoon nga di génn di romb sax ñu dóor la bal bal perdu kenn nekkatul woon si jàmm ndax lan jaay doole forcing ñàkk yërmande naa les familles victimes dañ leen war a bàyyi nii mais il faut que am lu leen soulager aussi ñoo xam ne ñii ñoo def Lors des manifestations, tu as vu, c'est un constat ce que je dis, c'est un constat. Il y avait quand même des abus des forces de défense et de sécurité. On a vu, on a vu des gens, Fallou, tirer sur des manifestants hmm. sans défense. Nous avons Lors ce qu'on défend à l'échelle internationale, nous avons dit que amna état de droit mo fay dox lolu dafa de ay révolution fallu pour ñuy ñun pour

tu as entendu ces déclarations dit à l'encontre de de de du général Moussa Fall loolu mënul am ba pare nga nan nga nan dañ leen reconduire moo tax le leen hmm. reconduire leen waxoon naa la ko fii man la reconduire le général Moussa Fall c' est véritablement paradoxal par rapport à la démarche politique de Pastef mënul ne ça ne peut pas être te ñu bëree bëri dañu chuter dañuy wàcc mënuñu liggéey ak Pastef hmm alors quand euh, euh, il di ki nga xam ne que moo justement euh, Seigne Bassirou mm. Gueye en tout cas sénégalais ñi ngi demandé exactement la révocation de Seigne Bassirou Gueye bi nga xam ne itam mi ngi jiite li nga xam que moo office national pour lutte contre la corruption ni ki n'a nga xam que moo di 25 avril Ou kon ni ki na nga xam ne que moo sa 25 avril mu daal di génne exactement.